évécués au Sénégal, euh, en relation avec la, le maire et le conseil municipal de Morolan, nous, euh, am, nous mettons à notre disposition 150 hectares. plus 2 hectares pour pour li nga xam ne lii unité industrielle bi foofu lañ koy def ci ñaari hectares yooyu donc c'est au total 152 hectares. ñu ngi war a tabax fii ñetti junniy logement fii ñu taxaw nii euh, euh, logement yooyu nak ay logements sociaux lañu ñu nekk ba xamni bi bi ci gëna bi ci gëna cher mu ngi nekk tourné autour de 11 millions ci F3. F3 Manam, fukki million ak ben. ci ci li nga xam ne lii ñaari ak salon ak garage ak cuisine. bu novembre jotee danañ ubi inscription yi pour que ñi nga xam ne bëgg nañoo jot ci logement yi ñu xam ñan lañu ñaata lañu ak ban façon logement la ñu soxla ndax ñun option bu ci nekk muy F3 F4 wala F5 mun nañ ko réaliser te ñu wax leen ni dañuy tabax fii. benn unité industrielle boo xam ni lu jëm ci bâtiment bi faut lañ koy génnee pour respecter délai yi nga xam signé nañ ko ak euh, le ministère de l'urbanisme ville verte Modi, si euh, déjà wax naa énergie renouvelable madame énergie solaire li nga xam ne bâtiment yi moom day am option wu nga am énergie solaire ak énergie bi nga xamni mo moo jóge Senelec mais ci euh bir site bi ay espace vert yu bare bare bari bari la ñu la def ci bir cité bi pour que ñi nga xamni ne fi ak le long des artères de la ville pour que mu nek véritablement un espace où il fera bon vivre mais également li nga xam ne lii déchet en sorte que déchet les plastique les déchets euh, yeneen ak ñu que nga avons une ville zéro déchet. 17 milliards ci phase bi ñu venus ici ngi deuxième étape suñu visite Nous gannaaw ba ñu notre Nous sommes ngi ci fi ñuy wax Morolan Morolan danaka c'est euh, ci buntu autoroute à péage bi la nga ci buntu Thiès au sud de Thiès à 45 minutes de Dakar Morolan au nord de Thiès à 45 minutes de Dakar ci autoroute à péage donc tay li nga ne lañ fi def de moy terrain bi monsieur le maire le euh, wote bi nga président de la république Makissal, euh, disponible Euh, losement moom bu doon kuy togg ceeb dañ naan euh, li ci jiitu mooy nga am cin cin bi nag mooy suuf te suuf bi maire yi ñoom ñoo ñu koy yombalal moom bi mu déggee appel bi rek entreprise bu tudd Enekio doon promoteur génnee na cent cinquante hectares yoo xam ne téeméeri euh, ñetti junni kër xaj na ci te li baax fii ci kër yi mooy gis ngeen ko deux cent vingt cinq mètres la. par par logement lolou muy lu jafé ci jamono ji nga mëna am 225 cent vingt mètres carrés nga xamné espace pour doy la ci ku yor njaboot loolu nag ñu ngi ko ci sant bu baax di ñaan yenen maire yi nga xamné ne ñoo nekk ci axe autoroute bi ñu def nonu ndax té lolou ñu yombalal kër yi ndax té nit boko naan dëkkil fi gëna sori dana gëna jappandi jàppandi mën nga ko jënd ba moomal ko sa bop ci ci numu gëna téyé ci yow dang koy joxit moyen wu mobilité manam dem beeg dikk bi nga yombal ko té dëkk yu melni dañu yombal loolu motax yenen maire yëpp ñu ngi leen di ñaan ñu yombalal ñuko ko defal ñu euh, foncier bu am solo ci axe autoroute bi bu ko defé ñu mëna avancer ni ma ko waxee sànq rek mois de novembre dinañ laaj la dinañ tek li nga xamné ben campagne d'inscription la ngir sénégalais fu mu mën a bitim réew Sénégal ku ci né fi nga bëgg sa kër ak sa budget fi mu toll nga wax ñu ko bu ko defee étude yooyu ak dana yoy ñu traité ko bu ko defee commune bu nekk promoteur bu nekk région bu nekk ñu mëna la wax né étude kat li la wone fi la ko nit ñi soxla ni lañ ko bëggé ci condition yi lañ ko bëggee. Thank you.